نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala noo ngi bàkk sunu borom di ko kañ ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom sunu borom mooy ki ko jagoo ñu ngi ñaan jàmm yàlla ak xéewalam ak muccam yàlla na borom bi subhanahu wa taala dëkkee koo dott ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain ñu ngi gërëm suñu borom bi mu nu defalaat ci tawfiq ba ñu dellu siwaat ci doon keppaaru xam-xam ci doon keppaaru am téere bi suñu borom bii nga xam ni téere la bu màgg mboolem luy jariñ nit ñi ci àddina ak ci àllaaxira sunu borom daf ko dëxal ci téere bi téere la boo xam ni ki koy jàng di ko nemmeet di ko bàyyi xel di jëfe ay santaane di bàyyi ay téereem kooka dina dund ci dal ci àddina ak neex ci àddina ak yëg yiw ci àddina ak texe ci àllaaxira loo xam ni amul keneen ku ko amee mën a amee feneen fu dul ci téere bi bokk na ci li tax a màgg téere bi mooy borom bi subhaanahu wa taala dafa dëxëñ mbooleem téere yi fi jaaroon ci biir téere bi xam ngeen ni ci lu aaju ci lu aajoo xam-xam bu yaa dégg ngeen tawraat dégg injiil dégg zabuur dégg soxafi ibrahim dégg soxafi Muusa muy téere yàlla soo ko la doon jox xeet yi di jiitu woon waaye dama ne téere yooyee la ca nekk lépp borom bi def koo dëxëñ ci biir alquran fihi naba'u man qablana wa xabaru man ba'dana wa xukmu ma baynana la fi jiitu woon ak li ñuy dund ak li ñuy ñëw suñu gannaaw lépp suñu borom daf ko dëxëñ ci téere bi doy na ci firnde maa farratna fil kitaabi min shay kon mbokk yi téere bu mat di jàng ngi nii rawatina ci weer yi ñu nekk muy weer xam ngeen ni borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ni shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqan saaru wala weeru koor moom mooy weeru alquran borom xam-xam yi dañuy wax ni ci bisub laylatul qadr ci weer wi lañ ko wàcc waaye ci bisub laylatul qadr la wàcc ni mu wàccee ci bisub laylatul qadr mooy borom bi subhanahu wa taala ci bisub laylatul qadr ci la wàcce alquran bi ñum ci lawxul mahfuz ci lawxul mahfuz moo tax laay jooju ñu bari tegtaloo jàpp ni moo tax ku yorul njàpp du mën a laal alxuraan dëgg la ku yorul njàpp bañ a laal alxuraan moo gën ci yow waaye nag laay jooju du ca tegtal laay ji wax ni innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun fi kitabin maknun alkitabu almaknun huwa lawhu almahfuz la yamassuhu illa almutahharun yaani ila illa aydi almalaika loolu mooy li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yu xasibu kon laaya jooju dëgg la nuru na ko waaye du tegtalam nag borom bi da ko wàcc lawxul mahfuz ci laylatul qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr wala inna anzalnahu fi laylatin mubaraka léegi nag ca lawxul mahfuz ca lay bàyyi ko yàlla di ko jox jibril mu koy jox yéen tasalam ci ñaar fukki at ak ñett ci ñaar fukki at ak ñett fukk yam def mag fukk ak ñett yam def mag ak fukk yi def madina soo ko boolee moom ñaar fukk ak ñett ci la alquran wàcc waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour wala ne la alquran weeram mooy weeru koor moo tax mbokk yi di ko jàng di ko nabam di ko tafsir loola dafa bokk ci def bu salaf saalih min qablina tàmbalee ko te yonent bi ak i saxaabaam ak mboolem ñu seen ginnaaw la cay firnde mooy que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi xam ngeen ni ku mokkaloon la mu alquran loolu amul werante yàlla moom sa nuqri'uka fala tansa danañ la jàngal te doo fàtte waaye amut weeru koor wuy jox lu dul yonent yàlla bi alayhi salaam salaatu wasalaam jibril dafay ñëw mu téyel ko kaamil bi ndaw sëriñ bu mokkal ndaw ndongo lu mokkal jibril mooy téyel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tari baqara ba naas ndax mbokk noo ko gën a tax bokk na ci firnde yi doon wane ne yonente bi mi ngi faatu ci at mi mu faatoo weeru koor woowa jibril dafa téyel yonente bi ñaari yoon weeru koor bi jibril dafa ñëw ne yonente bi kaay ma téyel la jibril téyel yonente bi mu tari ba mu yeggal jibril dem ay fan ci biir weer mu dellu si waat téyelaat ko beneen yoon muy ñaari yoon ci wenn weer at moomu ci la faat salawaatu rabbi wa salaamu alayhi kon weeru koor laa sakka ni loolu ci yonent bi firnde la ne alquran mooy weeru koor mooy weeru alquran amma saxaaba ya taabiu ña taabiu taabiu ña sulaxaa ya saalixu ni ñoom ñëpp dafa bokkoon ci seen doxalin mooy même lan doon jàng ñu jàng arut ñu jàng bayaan ñu jàng mantiq ñu jàng luga ñu jàng fiqh ñu jàng hadith ñu jàng mustalah la ñuy jàng lépp bu weeru koor dikkee téere dañ koy tëj tegale ko di xaar fari ko waaye alquran rek la ñuy jàng lu tax dañoo ñëw ci weer lu tax ku ko doon jàng la ngay am ci weer dañ koy juble lu tax mooy dañoo toll ci weeru promotion waru weeru wut tiyaaba kon nit ki war nay góorgóorlu ci jàng quran lu bari amaan na borom bi subhanahu wa taala may ko la muy wut ci njàngum alquran kon borom bi subhanahu wa taala defaloon nañu tawfiq ci saar wi nu nekkoon di suratu nuur su ma fàttewu ñu ngi taxawoon ci laaye juróom fukkeel ak benn kon ni ngi war a tàmbale ci laaye juróom fukkeel ak ñaar sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci laaya ji ñu war a tàmbalee aaudu billahi alsamii alalimi min alshaytan alrajim min hamzihi wa nafxihi wa nafsihi ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما يع... بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون kon sunu borom subhanahu wa taala bu nu defee fàttaliku bu gaaw démb ñoo ngi taxawoon ci borom bi subhanahu wa taala fi muy melalee melakaan ñetteelu kuréel bi ci ñett ñi kuréel bu njëkk bi mooy ab jullit bu gëm yàlla kuréel bu ñaareel bi mooy ab yéefar bu set wecc kuréelu ñetteel bi mooy li wolof yi tuddee ci kiñ cakkan mooy ab naafiq koo xam ni faru kii faru fële te noonu la seen borom tuddee sax noonu la leen suñu borom tuddee ay tikkiñ cakkañ lañ muzabzabina bayna dalik mooy ay tikkiñ cakkañ lañ laa ila haulai wala ila haulai farun fii farun fee bu nu teewloo tënk bu gaaw te gàtt bi ñu defoon démb ci melokaani naafe lii bindab tey bi li koy tàmbali ka lay topp borom bi subhanahu wa taala mu ni ginnaaw bu leeralee ni wa man yuta allah wa rasulahu ku topp yàlla topp bu yonenteem topp yàlla la shakka ni mooy topp ab yonenteem topp yonente bi nag dafa am lu ko alquran ku ko alquran tënk sunu borom la ni ci suratul fath li tuminu billahi wa rasuli lu ci topp wa tuazziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila gis nga ci lii la ko sunu borom tënk faaw ngeen topp ko di ko déggal bu nee waaw waaw la sant bu nee déet déet la sant faaw ngeen jàppale ko ci seeni bakkan ak seeni alal mbokk yi ñaar yooyu ñoo gën a foor ci doomu aadama muy bakkanam ak alalam leneen loo gis mbab ay mbokkam ak doom ak jabaram yooyu yëpp mën na caa def lu ne waaye la muy daj ci bakkanam ak alalam loolu du ko daj ci kenn saxaaba yi nag foofu lañu àggoon ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa leen ci ci dund ci mujjoon ci saxaaba yonent saa sallam ki ñu taxawee woon balay weeru koor bi ku may fàttali tur bi Talhatu bnu Ubaydillah gis ngeen keroog Uhud jaloore yi ma leen waxoon noonu la kon bokk na ci lan doon wax doon wax naxri duuna naxrika ya rasulallah sama digg ginnaaw moom na tàggu ci sa digg ginnaaw rek feneen yu ñëw na yem ci man bañ a yegg ci yow kooku xam ngeen ni bakkanam booba bakkanam yonent bee ko ko gën waxoon naa leen que jiitu woon di Abubakar Siddiq ba muy ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gàddaay léeg-léeg day dem ba taxaw ca kanam ne yonent bi topp sama gannaaw ñu dox ak lëpp mu arrière topp ci ginnaaw yonent bi nekk ca kanam ñu doxut lëpp mu dem taxaw côté ndeyjoor yonent bi waaw kii li muy def ñu moom lu mu am nga kenn ni ko sama bakkan bi damaa gëm ni sa bakkan dee ko gën a foor ndax man su ma dee man Babacar rek maa dee te yow boo dee umma bi yëpp ay dee damay daw ca kanam ndax sama xel dana waaw bu musiba dikkee ci kanam mbaa du dal ci kawam mu ne ma taxaw ca kanam su ma demee ca kanam ba mu yàgg ma ne muy yéen man Babacar xanaa damaa def xoolal ci ginnaaw maa nga bàyyi ci ginnaaw yàmb la mu ne bu ko defee ma daw ca gannaaw mu ne su ma dawee ci ginnaaw yàgg ma ne man xanaa damaa def ku jógee côté ndey joor comme du ma ko mën a baare ma daw côté ndey joor mu ne du ma xam ban côté laa war a taxawee ndax bëgg naa luy ñëw ak côté bu mu bàyyi ko ma fegal la allahu akbar kon saxaaba yi fii lañ yeggoon ci dëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa leen daw soo ta taxawoon ca buntu madina di xaar yonente bi dikk ci jóge ci xare sa baay dee na faalewut loolu sa nijaay dee na faalewut loolu sa doom dee na faalewut loolu dañu kullul masaibi baadaka tahunu ya rasulallah lu ma dal ci musiba woyof na toll su fekkee yow dara jotu la kon seen bëgg yonent bi foofu la yeggoon kon li tuminu billahi wa rasuli wa tuazziruhu wa tuwaqiruhu tey da ngeen koy ormaan nag waxoon naa leen ci saxaaba ba nu mu tuddati Urwat ibni Mas'ud balaa moo tudd dugg ci lislaam bi ko yéefari yabalee ci kara sul sul xodee bi mu ñëw def jaloog ak yenn sa salam ba mu dikkee bokk na ca lam doon wax mu ne buur bu nekk yabal ngeen ma fa ndax ñi ma nekkee nit ku muus te ñor dafa nekkoon ku éloquent ku xel mi ñor ñaw moo tax fu mu doon jëm dañ ko yabal pour mu wax waaye nee na musulmaa yabal ci nit koo xam ni ña ko wër dañ kaa ormal respecté ko ba mel ni ñu wër muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga lu mu wax mu ni wallahi bu yonent bi dee wax ñoom duñu sikki sax di ko fixé di ko xool allahu akbar allahu akbar amr ibn al-aas al imam zahabi lay nettali ci siyar mooy dafa dem ba toll ci sukuraat ay doomam ni ko dañoo bëgg nga abdullah ibn amr ibn al-aas abdullah ibn amr ibn al-aas amr ibn al-aas wala abdullah wala doom bi bàyyi ji wala doom bi kenn ci ñoom ñaar maa fàtt bi mu toll ci sukuraat njaboot gi ni ko dañoo bëgg nga melal nu nan la xar kanamu yonent bi ne ma mu ni billahi xamu mënuma koo melal ndax dama kaa rusoon ormaal ko ba daaw ba siggi fixé ko subhaanal malikil aala xoolal dund ak yonent ba mu faat nga dundaat ay at ca gannaawam ñu ne melal ma kanamam nga ne xaw ma ko mënu ma koo melal lu tax dama ko ormaaloon ba daaw ma ko xool moo tax mënu ma leen a wax nu mu mel dëgg la moom xam na ci waaye mënu koo misaal nee na saxaaba yi duñu sikk di fixé yonente bi di ko xool sallallahu alayhi wa sallam wallahi ku ci amee woon janaba sax doo bëgg yonente bi dajeeg yow jàngeen ci Buxaari Muslim xadisam Abi Hurayra ba Abi Hurayra daal seen yonente bi ñëw yonente bi seen ko Abu Hurayra ñu mettañ daw yonente bi daal waaw ki ma seen sens ba Abu Hurayra ñu ne ahan kay mu ne anama gisuma ko yonente bi toog ba Abu Hurayra ñëw mu ne ko waaw xanaa yow laa seen sens mu ne waaw foo nekkoon mu ne ko damaa amee woon janaaba te rus na maa dajeeg yow fekk maa ngi janaaba watu wakkiru da ngeen koy ormal ormal bi yeggoon na ci bu yonente bi daan wax ka anna tuyura taqaw ala ruusihim dafay mel ni ay picc mooy toog ci seen kaw bopp yi Ali dem Talib yonente bi nee na ko kaay ma yónni la waaye na nga dem ba yeggagul geesu Ali dox juróom-benn jéego juróom-ñaari yëpp ni am na lu lu mu bëgg a leerlu te mënta geesu ndax yonente bi moo ne ko bul geesu allahu akbar fii la ak topp mën a yem moo tax saxaaba yi humu saabiquuna saabiquun humu saabiquuna saabiquun humu saabiquuna al awaluun saxaaba yi ñoo jiitu ba pare ñoo ñoo njëkk a juddu ba pare jiitu gi mbaax gi ba pare bokk waale mbaax gi yépp yóbbu wa saabiquuna saabiquuna ulaika al muqarrabuuna wa ulaika humu saxaaba gis nga kon fii la seen orma eggoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ànd ak nag di ko jàppale di ko ormal di ko déggal ci ay digle waaye di bàyyi ci nag ay tere waaye kuñ ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fortas comme ni ko waa jamono defee lii lii lu ko ma xam lii lu Muhammad doyewu ko daal ci amul benn sens ban njëriñ la am Muhammad moo dox la woon mbëtt ma moo dox la woon garab ga dama ni Muhammad lim def dox loo mbëtt maa ci gën a tuuti wax loo garab moo ci gën a tuuti dëgg la loolu weddi wuñ ko de weddi wuñ ko de waxuñu loolu amul loolu am na yéen yàlla ne nee na benn waaye dikk na nee na ko wan ma firnde buy wane ni man yow yàlla moo la yónni mu ni garab gi mooy seede garab ga temtee ku ñëw ba ci moom daal di delluwaat loolu wér na kenn weddiwu ko waaye dama ni loolu moo gën a tuuti si lu yent la yent bi loolu indiwu ko fi woon wane ay xar baax ak jommal nit ñi loolu tax ko fi woon ñëw kon bu ñuy jàngal nit ñi nañ jàngal nit ñi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yent bi lu mu doon jullee doo ko dégg mukk lu mu doon ajeemaa doo ko dégg mukk moo dox la woon garab ga moo wax loo mbëtt ma moo wax loo till ga ah moo nangam nangam dama ni loolu moo gën a tuuti si lu yent bi defoon te loolu tax ko fi woon ñëw déedéet génn nit ñi ci zulumatil kufri wa dalaali wa shirki ila nuuril imaani wa tawxiidi wal yaqiini wa tawakkuli billah loolu ko fi indi woon génne nit ñi ci lëndëm lëndëmi bokkaale yàlla ak tooñ ak kéefar yóbbu leen ci leer ak ngëm yàlla ak wàkkilu ci yàlla ak yaakaar yàlla kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam topp ko noonu ànd ak nag lépp lu mu digle nga di ko def lu mu tere nga di ko bàyyi sunu borom ni ñooñu de wa yaxsha allah wa yattaqi ragal yàlla ba nag di ko wattali ulaayika humul faaiduun fa ulaayika humul faaiduun ñooñu mooy ñu jaxe sunu borom naafiq yi ba léegi wa aqsamu billah ñoo ngi gëñ ci yàlla wala dañuy gëñ wala gëñ nañ ci yàlla ni jahda aymaan yi ngi dëgg-dëgg gëñ maanaam dëgg-dëgg gëñ mooy xam nga billahi rek doy na billahi wallahi tallahi di ngand ngand la ba nit ñi yaakaar li ngay wax dëgg la mooy jahda aymaan yi mooy lim am ci effort lépp def na ko ca ngiñ la ba boo ko dégg kii ñu mawu la fen ngiñ lu fooree nii nit ñi mawu koo giñ di fen waaye xam ngeen naafeq moom daa bokk ci professionnel la mooy mën a giñ mën a fen naafeq dafa bokk ci professionnel la mooy mën a giñ mën a fen maanaam loolu moom daa bokk ci diplôme yi mu gën a tawele moom wa aqsamu billahi dañuy giñ ci yàlla jahda aymaani gim dëgg-dëgg giñ la in amartahum ni gis nga boo leen digalee nañu génn dem xeex fi sabilillah la yaxrujuna danañ génn waaye loolu nag dellu ci suratul xasr sunu borom mi ngi wax ni alam tara ila alladina naafaqu xanaa gisoo naafiq yi yaquluna li ixwanihim alladina kafaru min ahli alkitab ña ngay wax seen mbokki naafeq yi seen mbokki yéefar yi ndax xam nga ne yé naafeq moom yéefar ay mbokkam du mën a nekk jullit lay nuxrijtum la naxrujanna maakum bu leen buñ ne bu leen yent bi génnee bu yow ngeen xam ne ñun futteeku nañ pour génn ànd ak yoon wa in quutiltum la nansurannakum bu yent bi ñooy di xeex ak yoon yéen daan leen dimbali sunu borom mu ne wallahu yashhadu innahum la kaadibun yàlla nee na li ñuy wax ay kàcc la lay uxriju bu leen yonent bi génne woon laa yaxrujuna maahum duñ génn ànd ak ñoom wala in quutilu bu leen yonent bi doon xeex ak ñoom laa yansurunahum duñ leen dimbali wala in nasaru buñ doon def effort ba di leen jéem a dimbali sax day la ñu walluuna al adbaar tàkkat ak ragal ay tax dañ leen waxkat daw summa laa yunsarun li lay wan ni jullit a dëgër naafiq fa nax suñu borom ne la antum gis nga yéen ñi gëm yàlla ashaddu rahbatan fi sudurihim min allah yéen jullit ñi yéen la naafiq yi gën a ragal ci yàlla allahu akbar la antum yéen jullit ñi ashaddu rahbatan yéen la jullit ñi gën a ragal fii sudurim seeni dënn min allah ci yàlla dalika li ko waral bi annahum qawmun la yafqahun ñoom duñu xalaat naka ngay fekkee doomu aadama di ko gën a ragal ci yàlla gis nga kon ab jullit nii la doon mel waaye est-ce que loolu mooy am ba léegi déedéet tey ngi dund la yan doon wax xam nga lu mu doon sallallahu alayhi wa sallam def na tuuti yahud yeeg nasara yi dañ leen di tiim di leen paacoo di leen coob kal akalati alal qasaa comme ponkal yu tiimuk bool ni ñuy def lekk bi yéen yàlla def na tuuti noonu la leen xeet yi def saxaaba yi ni ko ah waaw awa naxnu qalilun yawma idin ya rasulallah xanaa day fekk ay benn benn jullit ñoo fi nekk mu ni déedéet keroog la jullit ëpp mu ni bal antum kathir da ngeen di bari lool walakin gusaaun ka gusaa'i say allahu akbar gis nga puuri puuri mbaxana moom ñuy solal kaas bu ñuy attaaya puuri nga xam ne boo ëppee mu naaw boo nuqatee sa baaraam mu naaw boo tuuree kaas mu ànd ak moom puuri bu tawee ba noppi puuri su ndox ndox mi nga xam ne day day ànd ak salte yi ak ñag-ñagaan ñi ci àll bi ak tuwaale di puur subhaanal malikil aala noonu la jullit ñi mel moo tax mooy di ngeen toppandoo yahudi ak nasara yi ba buñ duggoon ci paxam mbëtt law daxalu jaxar babbin la daxaltu buuhu suñ duggoon ci paxam mbëtt ngeen dugg ànd ak ñoom wax nañ dëgg yonent bi wax na dëgg de sallallahu alayhi wa sallam tey dañ leen a toppandoo toppandoo toppandoo ba nuru tubaab moo la gën a nuru sa baay wallahi nuru tubaab moo la gën a nuru sa baay lu tax ndax day firndeel waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon suñu war a mu ni gaa yi nee nañ yonente bi yow it day lan waxoon ne parce que wax nañ la ko layin amaltakum boo leen digalee la yaxrujun na danañ génn ànd ak yow sunu borom mu ne xul neel laa tuqsimu jërul ji taatukum seen ak topp maarufa xam nañ ko ba noppi allahu akbar loolu mooy lan mooy yéen xam nañ ni ay wax rek ngeen am amu leen jëf ay wax rek ngeen am taatukum maarufa mooy li ngeen tuddee danañ topp seen ak topp ci làmmiñ lay am taatukum maarufa qawlun bila aqal noonu la ko xaafis ibn kathir firi ah qul laa tuqsimu taatun maarufa bi maanaam mooy taatukum maarufa taatun maarufa mooy seen ak topp taatun mooy taatukum seen ak topp maarufa xam nañ ko mooy lan qawlun bila amal wax bañ a jëf am naa fekk moom mën naa wax a wax a wax a wax a wax ba gémmiñ gi fuur mën naa wax a wax a wax a wax a wax ba ba ba ba fàtte sax boppam mooy kan waaye nag jëf lu ci bokk moo tax sunu borom mu ni taatun ak topp la goo xam ni maarufa gu nu xam la mooy waxi neen te jëf lu ci bokk waaye inna allaha sa borom yàlla day xabirun aji dañ ci kumpa la waxoon naa yàlla huwa alxabir dañ kumpa léeg-léeg dañuy jël melokaanu yàlla woowu di ko jox nit yow ni nga dañee kumpa boo paree neel astagfirullah da ngay xool ni nga ni ko yow ni nga dañee kumpa dama ne boo ko nga paree neel astagfirullah ndax jël nga wenn melokaanu yàlla jox ko ko foofu xaw ma wolof yi ñoo fi juum déedéet wolof sax juumu fa nit ñi wax wolof ñoo fa juum yow ni nga bañee kumpa loolu la ñuy wax doomu aadama daa bañ kumpa waaye dañ kumpa huwa alxabir walxabir huwa allah kon saa boo nee nit da ngaa dañ kumpa xamal ne def nga bàkkaar bu rëy rëy rëy ndax jox nga ko melokaanu yàlla kon yow da ngaa bañ kumpa la ñuy wax mooy bëggoo kumpa bëggoo la ump doomu aadama bëggul lu ko ump lu ko ump muy bëgg a rey ba pour xam ko waaye yàlla ko dara xabiir ku dañ ci kumpa la bi maa taamaluun ci li ñuy def maanaam li ñuy def lépp yàlla xam na ko kon loolu li muy wane mooy lépp loo xamante ni naafiq nëbb na ko ci dënnam loola borom bi subhanahu wa taala xam na ko lépp loo xamante ni keneen tamit nëbb na ko ci dënnam borom bi subhanahu wa taala xam na ko moo tax ab julit su fatee te gëm allahu huwa al aalimu bi sarair wa huwa al xabiru aydan yàlla mooy xam yi nëbb te mooy ci dañ ci kumpa mënoo koo nëbb mënoo koo njuuj njaay mënoo ko njuuj njaaj mënoo koo durub la jàll su boobaa defal lu wóor te nga xam ne ki ngay jëflanteel huwa al xabir moo tax dafa bokk ci jeexintal yi nga xam ne jàng pas-pas da koy def ci nit mooy mu xam ni yàlla nangam ji aw turam la nangam ji mooy tekki xabir muy ku dañ ci kumpa kon amut lenn lu may def ci dund gi nu ko umb kon li may def dana leer moo tax borom xam-xam yi nga xam dañuy wax ci fànn gu mel noonu ku mel al-allaama ibnul qayyim ci lenn ci ay téeréem ku mel al-allaamatul qurtubi ci suruux yi def ci sarf asmaa'illaahil husnaa wala bi gën a siiw fi ñun nga di ko gis Cheikh Saïd ibn Wahb al-Qahtaani def ko jàng asmaa'illaahil husnaa dafay def tasiir ci nit ndax wenn tur wun la ca wax dafa am ay jeexital yi muy def ci yow mooy bi nga gëmee ne huwa ar-raaziqu wa huwa ar-razzaaq moom moom wërsëg te mooy wërsëgal kon da ngay gëm ni wërsëg tegu ko ci loxol kenn tës tës du mooy tax a am yaa caaral du ma du mooy tax a ñàkk kon lu tax tëdd du may nelaw dañ maa digal sabab lu ndax sabab lu ak jaamu yàlla la sama wërsëg kenn mënut a muus ak mu cet ba lekk ko mënumaa muus ak mu cet ba lekk yi ci jaamu rek gis nga loolu ban ban ban tafsir lay def ci yow ak dal da ngay dal fërëx fërëx jéeg rambax rambax ji dootoo ko defati parce que da ngay yëg ni du loolu fi ne mooy tax yëf yi yegg si kon loolu la jeexintal yi di def tur yàlla subhanahu wa taala def ci doomu aadama wa kadalika tur yëpp la kon borom bi subhanahu wa taala mu ni qul waxal ni yow yonent sa salam atiu llaha topp leen yàlla wa atiu rasula ngeen topp yonent bi topp yàlla nag mooy topp yonent bi wa man yuti ar rasula ah faqad ataa allah ku topp yonent bi topp na yàlla kon topp gi ñuy topp yonent maanaam daal borom bi subhanahu wa taala dafa xool ab jëmm tànn ko defar ko ba mu jeex yebal ko ci nit ñi mu représenté fi yàlla subhanahu wa taala la muy wax ko yàlla lay bàyyi ko la muy jëf ko yàlla lay bàyyi ko gis nga lii la saxaaba yi xamoon moo tax léeg-léeg su fekkee mbir dafa ñëw moo xam ne nekkul wax yi ñoom ca lañ ciy sañ a joxe seen xalaat gis nga yonent bi wallahi daawul wax saxaaba yi teg ci baat allahu akbar xalaatuñ ko waaye nag am na mbir yoo xam du mbir wax yi dafa am muhammad simple muhammad simple mooy bu wax yu ñëwut nga xam nit lay doon comme ñun micro bii mën naa yàqu du xam nu mu koy defaree parce que spécialisé du loolu am na original muhammad nag mooy bu wax yu ñëw saxaaba yi bu ñu yëgee ni wax yu la kenn du ci teg baax samaan wa taa jub def samiana wa ataana innama qaat kaan qawlu muminin ida doo ila llahi wa rasuli yaxkul baynahum an yaqulu samiana wa ataana kooku mooy Mouhamad wax yi amma Mouhamad joo xam ne wax yi ñëwul xalaat rek la ñuy joxe saxaaba yi sañ nañ ni ko ah ya rasulallah loolu moom wax yu la wala sax gis gisu bopp la yeneen bi ni wax yu la waa ji ni woon yeneen bi ni ko lan la woon mu ne ko damaa amoon xalaat bu ma ci war a joxe waaye gisuma ne wax yu xalaat am na ci ginnaaw allahu akbar moo tax mbokk yi siyaru saxaaba faw ñu di ko jàng parce que liñ bëgg dund ci boppam ñoom ñoo ko dundal ya rasulallah lii xalaat la wala wax yu la nañ def nii guerre bi daal nañ ko organiser diw demal fee diw demal fee saxaaba yi ne ko lii wax yu la wala xalaat la yéen bi ne déedéet bii moom du wax yu sama xalaatu bopp la Salman ni ko boo ma joxee ndigal de kon am naa ci xalaat yéen bi ne ko bismillah ah kon mbirum addina yi ñoom ñoo ko bokk waxtaane la wa amruhum suuraa baynakum salman ni ko lii nga jox xalaat da yow yonent bi yaakaar naa ne am nañ beneen boo xam ni xoolal ñun ñi mu ñëw wax sax am nañ beneen bu gën bi nga xalaat déedéet am nañ beneen boo xam ne buñ la ko gaaraloon di digg di gis nga leen allahu akbar undur ila adabi sahaba nahwa rasulihi gis nañ boo xam ne suñ la ko waxoon di nga ci gis ngëneel yent bi ni ban la mu ne ko ñun ca Perse buñ fa dëkkaat buñ daan guerre ay ponkal la ñuy wut préparé suñ yegee ni suñuy noonu ñoo ñëpp doole dañuy gat li ñu tuddee alxanda muy genre kàmb yu ngand wërale ko dëkk bi ba kenn du mën a ñëw ak ci ñun yent bi xool Madina gis ni li Salman wax da caa yem képp mooy lan mooy Madina am na côté boo xam ne ay xeer a ko fa wër am na côté boo xam ne mën nañ koo gas foofa lañ gasoon loolaa waral ñu gañe loolu la suratul ahzab bi ñetti wa radda allahu alladina kafaru bi xaysihim lam yanaalu xayra gis nga kon loola mooy jeexintalu xeex la kon topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp lu muy digle ak bàyyi lu muy terelu loola dafa war ci képp ku gëm yàlla suñu borom xul neen atiyu allah topp leen yàlla wa atiyu rasula ngeen topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah fa in tawallaw su ñeneen ñi lànkee bañ a topp yàlla bañ a topp yonente bi fa innama alayhi ma xummil yonente bi moom li mu li ko yàllay laaj mooy lam ko jot loo woon fa innama alayhi ma xummil mooy responsabilité mi ngi yam ci na jot li liñ ko yónni waaye yeggu ci nag nit ñi kaay leen jëm par force wa alaykum ma xummiltum yéen yàlla mi ngi leen di laaj ndax toppoon ngeen yonent bi wala topp leen waaye ndax ñee weddi woon nañ wala weddi wuñ yàlla ñoom la koy laaj du leen ko laaj loolu nag dafay dëppoog ci gi yaa yor rasul balligh ma nuzila ilayk jot leen liñ la jottali loo kese wa in lam tafaal soo ko deful fa ma ballagta risalatahu message bi àggut nit ñi nag mu ne bul tiit nit ñi wallahu yaasimuka min annaas yàlla moo lay aar ci nit aay jii mi ngi wàcc ginnaaw bu ñu jabaree yéen sa salam te wér na Labid ibn Aasim moo ko jabaroon te wér te mi ngi ak saxiixayn ci la ko yàlla wax nag bis bi ki tey nag yàlla subhanahu wa taala moo lay aar ci kenn du la mën a wax beneen ci def mooy jullit ñi seen responsabilité mi ngi yam ci woo nit ñi ci lislaam xemem loo leen waaye nag ëllëg yowal qiyaama ñàkk gaa gëm yàlla ñoom la koy laaj waaye du la ko laaj yow jullit bi xanaa la nga ca sàggan li nga ñàkk jotali loolu la yàllay laaj fa innama alay ma xummil mooy yent bi yàlla mi ngi koy laaj lam war a jotali ndax jotali na ko wa alaykum ma xummiltum yéen yàlla laaj leen ndax toppoon ngeen ko wala déggalu leen ko woon wa ma ala rasul ah wa in tutiuhu te bu ngeen toppee muhammad nag teftadu di ngeen indee ko allahu akbar wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen toppee yonent bi gindee wa in tuxaalifuuhu tudillu bu ngeen juweeg yonent bi sànq wa in tutiuhu tahtadu ku topp yonent bi gindee nan la ñuy toppee yonent bi mooy da nga koy fekkee gis ko gëm ko muy wax ngay def muy tere ngay bàyyi fekkee woo ko gisoo woo ko yonent bi bàyyi na fi sunnaam summa al ulamaau warasatul anbiyaa yonent bi néewatu fi waaye borom xam-xam yee ko fi nekkal yonent yàlla bi nee na borom xam-xam yi ñoom ñoo donn yonent yàlla yi kon lépp loo xam ni borom xam-xam yi ñu ngi koy jàngale muy leer te dëppoog sunna nga xam ni loola la ñu war a jëfe wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen toppee yonent bi di ngeen gindeeku atiu allah wa atiu rasul li ko alquran baamu ak bari lool topp yàlla topp yàlla la ñuy yàlla la la la la ma ñun suñu borom boppam la ñu topp la ak bu yeneen teew yàlla topp loolu bàyyi ma sàmba de topp loolu bàyyi biram de topp loolu bàyyi moodu de déedéet yàlla mi ngi nu topp loolu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah photocopie bu original bi ah original bi mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu yàlla toppaloo ëllëg fexe ba nuroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ba fexe ba nuroog keneen ak ku mën a doon ci kaw suuf xatta walaw kaana Abu Bakr nuroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom nii ci boppam kenn la nur nur kon wa in tuti'uhu bu ngeen toppee Muhammad tahtadu di ngeen gindee ci lépp nag fi dunya wal axira wa ma ala rasuli déet di war yonent bi illa al balaagul mubin lu dul jottali ba mu leer yonent bi loo rek ko wax jottali ba mu leer moo tax sallallahu alayhi wa sallam ak a soog nañ si jottali lu ne daj na ko ci jottali nekk na màkka ñu koy fitnaal di ko bunduxataal di ko xas di ko weddi muy wax ñu koy reetaan moom de satum dina da koo jàpp moom de damaa yaakaar daa bëgg ñu takkal ko fukki jigéen di jàpp si dëkk bi moom de damaa yaakaar ne fi mu nekk nii xanaa moom moom moom lu ne loo xalaatu doon wax waaye muy muñu de ndax dañuy ko balleem maanu si lay léegi moom sëñ bi ñu ne bañ a jot si dem na Faye ñu dóor ko fa dóor yi métti ba deret ji doon waddee ci yaramam rogalaat ci ay tànkam kolew ci ay dàllam salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi julli na guddi naafi la guddi di jooy di jooy ba Bilaal ibn Rabaax nee na bi ma koy yee ci fajar maa ngi fekk fa muy sujjóot koy xet mu ngi jàng laay jàng yi saa doon wax ci jeexital Maa'ida ah in tu'addibuhum fa innahum ibaaduk yàlla de boo leen bëggalee say jaam nag balaa yi jeex muy jooy ndax rek di ñaan yàlla yërëmal ko am xeetam wallahi mbokk yi lenn lu nu def lu dul topp muhammad sallallahu alayhi wa sallam fayu naa lu xam sonn na ci ñun lool sallallahu alayhi wa sallam ay yoon yonent yàlla bi nee na yonent bu nekk yàlla may na la ñaan goo xam ni boo ko ñaanee yàlla nangu yonent bu ne ñaan na sa gos man nag saa gos maa ngi ko dee ci ba àllaaxira ndax saa xeet laa ko bëgg a jëndee allahu akbar subhaanal malik yonent bu ne ñaan na ak ñaanam goo xam ne yàlla da koo garanti ñu ko waxal tey loo wax ma nangu yonent bi ñu ko waxal tey loo wax ma nangu mu ni déedéet man waxaguma sama wet dama koy denc li li booy yi tuddee ñiraantal ñu jox la benn lekk nga war koo lekk di ko ñiraantal di ko denc pour kañ pour fii ba ngoon yonent bi ñiraantal ñaanam sallallahu alayhi wa sallam ngir àllaaxira na ko na ko ñaan yàlla xitile aw xeet allahu akbar wallahi sonn na lu ne lu ne lu ne def na ko ngir aw xeetam gindee lu ne lu ne lu ne lu ne lu ne def na ko ngir aw xeetam gindee ndax rek bëgg leen dugal aljanna bil muminina raufun rahim rasulun min anfusikum xafidun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufun rahim ku bëri woon yërmande la ci bal sax daa toog ba mu yàgg mu ne saxaaba yi allahu akbar mu ne saxaaba yi man daal ñi ma gën a yàkkamtee gis rek ah mooy sama mbokk yi sama mbokk yi saxaaba yi ne ko yi waaw ya rasulallah ñun ñun duñ say mbokk ñan ñan nga am ci mbokk ñu dul ñan mu ne déedéet yéen du ngeen samay mbokk yéen samay saxaaba ngeen ñu ne ko ñan ñooy say mbokk mu ne ay gaa yoo xam dañoo ñëw sama gannaaw gisuñu Muhammad gisuñu bàyyi Muhammad gisuñu kër gëm dëkkul gisuñu daal woon doon sol lu dul dégg rek ñu gëm ko gëm bu dëggu te di ko topp yonent bi mu ne ñooñu ñooy samay xarit allahu akbar mbokk yi Muhammad sax mi ngi xarit toog yéen bal sax ak xadis ñëw na yéen yàlla bi nee na képp ku dajeeg Isa ci kaw suuf na nga ni ko jàppal loxo te nga ni ko yonent bi nee na mi ngi lay jot li nuyoo yonent bi dalaa fonk ba di lay yóbbal ci ab nuyoo bu jëm ci ab yonent comme moom kon li la war mooy gëm ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam topp ko ci la sa texe nekk fi dunia wal axira borom bi subhanahu wa taala mu ni wa ma ala rasuli déet di war ab yonent illa al balaagu al mubin di jot li ba mu leer bu ko defee la def nag borom bi subhanahu wa taala moo koy àtte ah lasta alayhim bi musaytir ah inna ilayna iyaabahum summa inna alayna xisaabahum jot li rek ba mu leer balleer maa la lay lay jot leen boo jotee li war a fi tuddee sa jaar wàcc na laaya ci topp laaya la joo xam ni laaya yi dig bu neex na waaye ay jàngale yu nit nag yu faram-fàccewu yu firintiku dëxëñu ci biiram borom bi sallallahu alayhi wa allahu alladina amanu yàlla day sunu borom dig na ñi gëm yàlla minkum ci yéen wa amilu saalihaat tey jëf jëf yu baax la yastaxlifannahum fi l ard yàlla dina leen samp ci suuf si may leen doole ci suuf si wuutal leen ci suuf si ñuy àtte ci kaw suuf si yilif ñëpp ci kaw suuf si ñëpp ragal leen ormal leen kama staxlafa alladina comme ni yàlla wuutalee woon ñi nga xam ni min qablihim ñoo leen jiitu laay bii nag balaa ma ciy sore damay wax ni laay yu bari ay njàngale damay wax al allaama ibnu kathir dafay wax ni laay bii de yàlla da koo dig yàlla ab yonenteem ak ñi gëm yàlla ni dana leen def ñu nekk kuutlaayu yàlla wuutu yàlla nekkal yàlla ci kaw suuf di taxawal li yàlla bëgg ci kaw suuf ñu nekk ay njiit ñu jullite yu gëm yàlla di dogal shariatullahi ala al ard da ngeen a tiitoon sunu borom la wala yumakkinanna lahum yàlla dina leen jàppandalal diinahum alladi irtada lahum diine ji nga xam ni moom la leen yàlla gërëmal ngeen diine woo ko muy islam wala yubaddilannahum yàlla dina leen remplacer min baadi amnihim ginnaaw min baadi xawfihim ginnaaw tiitaange yi ñu doon àndal insécurité bi ñu doon àndal sunu borom dana koy jàppandalal remplacer ko am na sécurité bu mat sëkk wóor gu mat sëkk doole ju mat sëkk yaabuduuna ni charte bi mooy da ngeen may jaamu wala yushrikuuna bi shay'an duñ ma bokkaale dara li ma lii sunu borom digal yàlla mu ne dinaa leen ko dig waaye dinaa leen ko defal à condition que ngeen jaamu bañ naa bokkaale dara jàng mu njëkk bi mooy puissance bu ko jullit ñi bëggee ci kaw suuf xuwa doole yilife kàttan ñëpp ormal leen lu leen koy may amut lu ca gën a gaaw pas-pas bu set yaabuduuna laa yushrikuuna bihi shay'an loolu mooy taw bi ma gën a intéressé ci aaya ci nekkate pas-pas setal ko dafay waral jullit ñi nekk ay sang ci kaw suuf fexe ba kenn gi yàlla nekk kenn bu ko kenn jaxateeg dara fexe ba lenn yàlla bu ko kenn jox kenn fexe ba lenn kenn bu ko kenn jaawal li ko yëpp yàlla loolu saa buñ ko defee danañ njëkk dund ku dal ci kaw suuf dellu ginnaaw nga ànd ak moom boo xoolee saxaaba yi dañoo nekkoon nag ñu néew doole lool te lii ma lay wax alxaafid ibnu kathir mi ngi koy nettali ci tafsiram téere bu mag bu mu tuddee taarix muy albidaaya wa nihaaya boo demee fekk ko ci ulama siyar ñiy wax ci dundu saxaaba ya salaf foo ci dem fekk ko ci boo delloo ci bidaaya wa nihaaya boo delloo ci ibni kathir boo delloo ci sajaratu zahab fi axbaari man dahab boo delloo ci al istiaab bu ibni abdil bar boo delloo ci kàgg buy siyar yi nga xam lu mel ni siira alamin bala lu mel ni sifatu safwa téere yi ñu xam ci sunna ñuy jàngale sunna di jàngale dundu saxaaba yak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da lay wax nañ doon dundee ma tënkal la ko ci tënk bu gàtt yàlla soo dara dafa xool waa kaw suuf ñu nekk ñu ñu ñu bokkaale yàlla ñu tilim ñu lëndëm yàlla tànn ku ñuy wax Muhammad ibn Abdillah yónni ko ci ñoom Muhammad ñëw di woote amul poste police boo xamante ni kum jotee fa lañ koy àtte amul alal joo xamante ni tey buñ ko blessé bu dee amoon ay blessure fa lay dem fajoo ci amul kenn koo xam ni mooy taxaw yor doole bi ko jàppale waaye nag dañoo xamul ni inna al quwwata lillahi jamia doole moom yàllaa ko yor moo ko moom moo ko njëkk moo koy def yonent bi di woote saxaaba yi commencé di ko wuyu lii nag dama bëgg ngeen ànd ak man ci ànd ak tadabbur wax ci di ko seetlu xam nga lu tax mooy toog ba mu yàgg ngay xalaat waaw man li ma nekk tey neex na am neexul fàttaliku lële gën la tax nga xam ne li ngay dund neex na yonent bi di woote sallallahu alayhi wa sallam ñoom Abubakar di wuy si saxaaba ya benn benn ci lu dul luñ mën a faram-fàcce ndax lu gudd la waaye xam ngeen nañ doon ñëwee ndax yàgg nañ ko fee nett ni affaire yi diir lool metti ci lool am na ca saxaaba yoo xam ni da ngay dem ca al isaaba fii tamyiz saxaaba nga xam ni néew na saxaaba booy soxla lu tur ma nga ci ñu wax la turam nga dem kii ndax saxaaba la am déet ah kay saxaaba la daa teel a dee ndax ca métti dee jamonoy métti dana dee moo tax kuy def dundam ah kuy def tarjamaam doo wax lu bari. am na saxaaba yoo xam ne ñetti at yenn embargo yonent bi gën a xiibone ba dee am na saxaaba yoo xam ni. demoon nañ bay lekk xobi garab am na saxaaba yoo xam ne ay tut la seen digg ginnaaw yi defoon ndax séndal guñ ko doon séndal ci safara jàppoo ñaari loxo yi jaaxaanal ko sawara sawara si lakk digg ginnaaw bi xabaab ibn al arab noonu lañ ko doon def bilaal ibn rabah xeer yi doon teg ci dënnam moom mun ko woon a teggil boppam te balaa ñu ko defee xam nga nan laa dañuy yeew ñaari tànk yi boole ay konkal ñu koy jiri ci màkkaat tàngoor wax dëgëri ba mu àndoon mun ma ko baamu ndax wax naa ko su waxatal si ah am na ay saxaaba yoo xam ni subhanallah da ngay gis saxaaba boo saxaaba boo xam day toog ak ay doom mu ne gis ngeen sama nopp bu këtt bii te jamono jooju lañ ko këtti woon da koy bàkkoo ah wallahi ak dara bàkkoo dem ba ci yàlla naa ko sama nopp bii dañ koo këtt bii sabilika sama nopp bi dañ koo dagg te sa yoon lañ ko daggee dama ne loolu mooy bàkk bu neex bi gis ku nan ay doom gis ngeen sama baaraam sànqalañ bii ña ngi ko cawee woon jaar si keroog ko xet di ko nekk bi ndax doom yi fekkee wuñ métti woo waaye faw ñu wax leen ko ndax ñu xam ko ni yëf yi métti woon na fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di woote saxaaba yi di ko wuy si ndeysaan benn waay bi jox arqam lu abil arqam joxe këram moom ngay dégg ñu naan daarul arqam ibni abil arqam ñuy làqat foofa keroog fa la Hamza tuubee si woon ah fa la Omar ibn al-Khattab tuubee si woon ah nga xamante ni bis boobu bis la boo xam ni dugg si na ci mbégte loo xam ni na ko Abdullah ibn Mas'ud doon waxee nee na yàlla daf ñoo tàmbalee defal teraanga ngoon nga Omar tuubee dugg ci lislaam keroog ngoon boobu dañoo génn di def ay manifestation ci mbedd bi di wane ne Omar tuub na ndax dafa mel ni doole dugg si la ci biir lislaam muy Omar ndax ponkal loo xam ne ñu naan dem ba ci digg penc ma jaaxaan sa suñu mbub mi nelaw te kenn du ko jege ndax yéefar yee jullit ñëpp maa ngi ko ragal moom Omar ibn Xattab rëy ba ci ko yàlla mayoon te kéefar bi da ko tax ci lislaam ndax te xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fil islaam idaa faxukum ba ngeen nekk tedd ku la gënal bu ngeen duggee ci lislaam bu ngeen jàngee diina xam ko rek mu gënal noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom nag di woote affaire bi nekk affaire bi nekk ba fukki at ak ñett yàlla ni ko nag léegi dem leen ngeen gàddaay Madina ginnaaw bu jiitu ñu gàddaay Éthiopie ah léegi nag bi ñu gàddaay Madina nag doole commencé am na puissance commencé am jullit ñi commencé toog ci seen seen di toog yu dëgër ci la yàlla def taw fépp mag yonent bi commencé di ubbi xasawaat te ngay dégg badar ci ngay dégg badar bu njëkk ga dégg badar ak ñaareel ga dégg Uhud dégg xandaq dégg murayka dégg xaybar dégg bani mustariqa ah dégg bani quraysata dégg bani nadir muy xeexi yonent bi xeex sallallahu alayhi wa sallam ba ca xonee leen ñoom muy xeex yi mett tey ñu taw leen su ëllëgee yàlla jox leen ndam te yam leen caw yu tuutee tuuti la daanaka matu juróom ci ay baaraam matu sax ñett laay wax kon noonu la yonente bi def sallallahu alayhi wa sallam di woote ba commencé wasaare l'islam yonente bi faatu sallallahu alayhi wa sallam ba ci jamonoom ay buur wuy si nañ ko xam ngeen Najaasi buur la woon ci Éthiopie te tuuboon na doon làqu tuubam moo tax yonente bi ba mu faatu dafa xëy yor yor muy saxaaba yi kaay leen damay jullee Najaasi ndax jibril la ko dikkal ni ko yàlla nee na najaas yi dee na te jullit la woon jullee ko loolu la ñuy tuddee salaatul salaatul gaib ab jullit bu dee foo xam ni yaakaar nañu julleewuñ ko fa dagan nañu defal ko salaatul gaib ñun fii ci Bambilor ñu ne diw kat fam dee réew yéefar la kon kenn julleewu ko fa kañ la dee déew ñu ne ñun nañ taxaw ci bayaal bee ñu jullee ko salaatul gaib loolu rot na ci sunna insha allah gis nga am na beneen buur bu ko wuy si mooy kan mu xam mu xaw xi mu xaw xi xam ngeen ni joxoon na ko ay kado yu bari ba pare moo ko may soxnaam soosu ñuy wax maar yi dafa xëpp pëy am na yeneen buur yu lànk nag am na ña koo xam ba lettre yonent bi dikkee da koo xotti yéen yàlla mazzaqallahu mulka yàlla na yàlla xotti nguur gi comme ni mu xottee sama bés ni mu xottee sama lettre moo tax it daj na li wolof yi naan lu buur dajul ci taal balaa moo faat yonent bi faatu sallallahu alayhi wa sallam bàyyi fi Abubakar affaire bi commencé am doole nag xoolal fa ñu jóge woon danoo ñàkkoon doole ba ku daan julli day làqatu danoo ñàkkoon doole ba kuy jàpp day làqatu danoo ñàkkoon doole ba kuy nodd nuulal ko fas gémmiñ bi pour mu paase fii ñii rek nañ ko dégg aw bakkan nii gars yi defe ne bu aw bakkan dikkee yeneen bi faatu affaire bi day wàññee nday saan góor yàlla bu dëgër googu bokk ci rijaalun laa tulhiihim tijaara wala bay'un an zikrillah tuuti lool jege gas ndigg li taw root boo ko xoolee da nga yaakaar kii boobu ma xëy mu baax daanu fekk iman jaay gën a dëgër moom tànn wax gars yi commencé yi mursat ñi naan dañuy def ñi naan dañuy xeex ak duñ xeex fekk jay usaa usaama yéen yàlla mi ngi tattale woon soldat soo xam ne nangami junniy saxaabaa ca nekkoon yéen bi jël ko ne su tuuti bu am 18 ans muy usaama te doomu zay daal di ko koy teg ca kanamu geer ba moo tax am na ci saxaaba yi ñu doon wax naan ah waaye mooy lu tuuti bi ñuy def di ko yeneen bi dégg ku mu ne waaw waaw ku mu neex waxal lu la neex waaye ku ko contre xamal ni contre nga jiit ak baayam te ngeen xam ni baayam yàlla ya yeneen bee ko jiitaloon moom mii it yeneen bi moo ko jiital te it nag na ngeen xam ni bokk na ci ñi gën a am cër ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam subhanallah soldat soo xam ni xale ba dañ ci dix-huit ans la am Aboubacar ci doon keppaaram lay nekk Omar ci doon keppaaram lay nekk subhanal malik al aala Aboubacar Siddiq la jàpp jàpp ci ngalaabu fasu Usaama di ko ommatal Usaama Usaama ni ko mukk Aboubacar di dox Usaama yéeg ci kaw loolu kay dee moom ko gën a ni cëpp wàcc Aboubacar ni ko giñ naa ci yàlla di nga yéeg di nga yéeg def te damay dox mu ne ko du ma ko def mu ne ko da nga ko def mu ne ko yow say tànk laa bëggul mu laal suuf Aboubacar ni ko yent yàlla dañ ne tànk bu pëndee fii sabilillah aljana ñeel na ko loolu laa bëgg a am ndax mooy amirul muminin mën ta def subhanallah Omar ibn Khattab nee na soldat doosu du ñu dem parce que situation yi ne suñu biir nan ko rek doog a rek la ci bitti Aboubacar ni ko wallahi bu ay xaj bàyyi ko woon ca àll ba ñëw ngànk tànki soxna yonent bi daw ak moom du ma tax a bàyyi li may def ab julit dafay dëgër ci li mu nekk ab julit dafay gëm ngëm a gëm gu dëgg gu dëgër xool Aboubacar ginnaaw yonent bi lan ngeen yaakaar ni moo ko war a gënal ci kaw suuf si jamono yonent bi lu dul ay soxnaam mu ne bu xaj yi man ngànkoon tànki soxna yonent bi daw ak moom du ma tax a fomm sama yoon wi ca la def li ñu tuddee rubu ridda kenn ci olama salaf mu ne yàlla dëgëral na lislaam ci ñaari bis bis ba ci njëkk mooy bis ba Aboubacar doon def sorub ridda bisam ñaaral mooy bis ba imam Ahmad doon défendre mehnatu xalqil Qur'an affaire bi commencé am doole te mu ne Aboubacar liggéey bu rëy bi muy liggéey yëpp mi ngi ko def ci ñaari at yu manqué tuuti wala boog ca lan ndekete yoolee Aboubacar mi ngi pankal bonkal moo xam ni ah ab buur buñ toogee ca fekkam benn waykat arab day wax ju am solo mu ne yahtazu kisra ala kursiyi faraqan min xawfihi wa muluku saami yaxsaahu nee na kisra mu ne toog tegg ci feega nee na boo bëggee seen ko yëkkati rek ne la Omar ibn Xataab subhanallah mu ne boo dee Omar ibn Xataab rek day jiit ba siis ba yëkkati mu ne yahtazu kisra ala kursiyi faraqan kisra day jiit bay bañ bañ ca feegam ba dafa ragal Omar mboolem buur yi nag moom koo tuddal Omar rek ku nekk moom bu doon am am soow la doon naan so soow ma ci day daal di teg ci suuf kon nekk Aboubacar mi ngi bakkal Omar ibn al-Khattab ki nga xam ne bu seytaane dajeeg moom day daw Omar ibn al-Khattab ñëw am ci xilaafa gi ay at allahu akbar allahu akbar liggéeyal jullit ñi wasaare doole l'islam boo xam ni ba léegi aay maa ngi ci aay bi de bu ko fàcc wala yubaddilannahum min ba'di xawfihim amna ñëpp leen yeboon di leen paajoo tey dem nañ ba l'islam dafa am doole am doole goo xam ni baytil maqdis muy Jérusalem gii bay sax nga xam ni boo koy joxoñ sax boo amoon ngëm da ngaa war a jooy ndax mi ngi ci loxoy abnaul xiradati wal xanaazir doomi mbaam xuux yi ak goro yi mu yahud yi ndax noonu la leen yàlla tuddee ci jamono Omar ibn Xattaab ci lañ ko ubbi ubbi gu jëkk gi ñaareelu ubbi gi mi ngi am ci jamono talaaxu diin al ayubi ñaari ponkal yooyu nga xam ne ba léegi baytil maqdis day jooy ndax gisatul ñaar ñi aahin ah ayna al omar aahin ah ayna al salaax omar ibn al xataab keroog ba muy ubbi ci baytil maqdis subhaan al malik gars yi dikk ba ci fi mu wàcc di ko teer jox ko li ñu tuddee biir zaw biir zaw damaa xamut nag moom berteel la laa ko mën a tuddee ci wala xaw ma lan la maam daal moom daal boo ko waree day tom ana Cheikh Ibrahim xaw ma nu koy tuddee ci wolof day nongi nongi comme comme comme seedi réseau yooyu ñu waral ko Omar Omar war ñaari jéego affaire day nongi nongi mu ni cëpp innama argabtumuni ala shaytaani yéen shaytaani ngeen ma waral waralu leen ma lu baax man du ma war luy nongi nongi subhanallah te boobu mooy amirul muminin mu war am mbaam punkal la woon mu njool tànk yi gudd mu war mbaam mi nekk moom moo sut mbaam mi tànk yi direeku Abu Ubayda ni ko mukk du ci dal sunu amir ñu gis ko mu war mbaam tànk yi direeku ndeysaan ndax boobu da koo fonkoon Omar ibn Xattaab ni ko Abu Ubayda daal maa ngi doon yaakaar kàddu gi bàyyi ko ci keneen ku dul yow waaye bàyyi ma waay yow diree kuy sànq ci kaw mbaam mooy lan lii moom a neex loolu laay def noonu la diree ko ay tànkam ba ñëw ci baytil maqdis ñu ubbi baytil maqdis mu delluwaat ci loxoy jullit ñi ba ni ñu ko nanguwaatee l'islam bi am doole ba mboolem réew yi nga xam ni wóorul na daanaka état bi nekkoon ci Madina ñu si ëpp wala genn wàll bi yëpp dugg nañ ci l'islam kon ba léegi yàlla mi feeñal dig bi mu dig ñi gëm yàlla nekk te Umar ibn Xattaab ma nga doon fàttal ak dawlatul osmaniya muy Osman ibn Affan fa Umar ibn Xattaab yamoon Osman dem na ba wër ko ñaari yoon ci xilaafa nga xam ngeen ne Osman am na juróom fukki at ak ñaar comme ni ma leen ko waxee juróom-benni at yi jàmm ak juróom-benni at yi musiba waxoon naa leen ko ci dundam juróom-benni at yoo xam ni dafa wasaaroon jàmm am ak yeneen juróom-benni at yi nga xam ni ci la ko jullit ñi doon ci la yéebari yeeg naafeq yi doon def ay fitna ba ci lañ rey Usman ibn Affan ba ci jamono Ali ibn Abi Talib kon daal li ma bëgg a wax mooy maanaam ci jamono yooyu ci lay lislaam di wasaaroo di wasaaroo ba yegg fi mu yegg tey moo tax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis dañu inna allaha zawa liya al arda fa raaytu mashariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulka ummati ma zuwiya li minha yàlla daa dafa dafa jékki-jékki rek leen marqué la àddina bi ma xool ba fa penku yem mu lemmarti ma beneen côté ma xool ba fa sowwu yem te fi ma sama bët yegg yépp ma xool ba sama nguuru waaw xeet l'islam dana fa yegg xam nga keroog ba ñuy def xandax saxaaba yi dóor ay fekk ba daj wenn xeer ba daj wenn xeer xeer wu dëgg këcc saxaaba yaa ngi xiif ndax ay benn benn tàndarma lañ amoon amuñu lu ñu lekk yonent baa ngi takk xeer ci ndigale ndax xiif saxaaba yi ñëw woo ko yonent bi daal di ñëw ni cëpp ci biir pax bi du woon góor gu bàyyee ko de mu ni cëpp ci biir pax bi yëkkati xeer ni bismillah ni tay mu ni tatar mu ni allahu akbar kisra ak la ko wër lépp ci nguuram di ngeen ko gañe di ngeen islam da dafa dugg ba mu xëccaatee mu ni tay mu ni xaytarit nguuram nga lépp laa wax dina dugg ci l'islam mu jëntalu dóor ba ci la ni sax l'islam dana wasaaro ba yegg ci àddina bi yëpp xam nga keroog ba yonent bi daw di làqatu ji ànd ak Abubakar ñu di leen dab Suraaqa ibn Maalik dab ko mu naa ko Kisra buñ ko gañee lam ya muy takk di or yow laa koy may waay waay waay waay waay waay loolu tax xel nangu na ko su fekkoon ci xel rek la ñuy àtte yow yaa ngi ñàkk doole ba jóge Màkka di daw di làqatu ji boo amoon doole joo mayee ay or kay xanaa kay war ngaa bokk Màkka waaye da kaa bëgg a wan ni yàlla xamal na ma ni Kisra danañ ko gañe ba lam yam takkoon ci or yow lañ koy jox allahu akbar Omar ibn al-Khattab moo tombeeg ba ñuy gën buur boobee te Omar ibn al-Khattab ba yonente bi waxoo ca fekkewu ko tey dégg ko yàlla kii maa ne ngir Omar ibn al-Khattab di séddale magaani yi yëkkati ñaari lami Kisra yi ndax kontaan gu mu kontaan ci Suraaqa ba jox ko ko Suraaqa daal di yuuxu ni wallahi laqad sadaqa habibi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom daa defee ne Omar dafa koo jox parce que loolu la yonent bi waxoon fekk yëpp ya daa tombee ndax yonent bi waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam kon noonu la lislam di wasaaroo ba ñu ubbi ay dëkk yu bare bare bare bari dem nañ ba benn bis am na benn saxaaba boo xam ne yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wa sallam muy Adi ibn Hatim Adi ibn Hatim di koy tuub yonent bi la ni ko waaw est ce que xam nga fu ñuy wax xiira est ce que xam nga barab bu ñuy wax xiira Adi ibn Hatim ni ko déedéet xaw ma ko waaye nag saabu nopp dégg na yéntu yàlla bi ni ko islam jii may woote woo du yaa ngi dund pour walla l'islam dina am doole l'islam dana wasaaroo ba yegg ci xiira jigéen dana jóge xiira dox ba makka ba madina aj si te amut ku muy tiit amut ku muy ragal ndax day fekk booba islam moo am doole subhanallah mi ngi mel ne ñun la jóge fi ba Somali dox ko te doon kenn ku la laal parce que l'islam mooy aj ci fépp yéntu yàlla bi ni ko wala tuftaxanna kunuusu kisra koom-koom ma kisra yore di ngeen ko ubbi di ngeen ko gañe kisra ibn Hurmuz bi mu ne kisra fekk àddina xaj xam na koy kisra yéen bi ne ko wala tuftaxanna kunuusu kisra mu ni ko kisra ibn Hurmuz yéen bi xam nga li ngay wax kisra ibn Hurmuz mu ni ko waaw kisra moom nga xam moom laa waxe di ngeen ko ubbi magasin yam yore ci or yépp jullit ñee koy séddoo insha allah mu ne wala yabzulanna almaalu xatta laa yaqbalahu ahad alal dana bare bare bare bare bare bare ba kenn duut ko soxlaati allahu akbar Adi ibn Hatim nee na wa kuntu fii man iftataha kunuuza Kisra mu ne keroog ba ñuy ubbi kunuuzu Kisra bokk naa ci ña ko doon ubbi xanaa loolu mooy kon wax yéen suñ tey dëggu nag beneen bi ci des mooy ban nee na dem naa ba gis jigéen bi jóge xiira di aj ci ba Makka te kenn du ko laal ndax lislaam ay aj ci fépp kon ban moo ci des ah alal bi dana bari ba kenn du ko soxla booba nag fekkeewu mu ne wallahi wa satarawna al axira li anna ar rasula qad qaala mu ne giñ naa ci yàlla bi ngeen gis bu mujj bi ndax yonent bee ko wax bu mujj bi fan la amee ah lenn ci xilaafa Osman waaye nag ba tax ñuy wax mooy Omar ibn Abdul Aziz subhanallah naa boobu moom li may wax mbokk yi bis bu ne kuy kuy woote ay budget di woote ay budget ba woote budget célibataire ma mel bu jaar ci mbedd mi déglu leen yéen waa dëkk bi Omar nee na ku célibataire bu amul jabar bu subaa nga fekk ku bureau ba mu jox la loo takkee jabar l'islam tolloo la foofu alal dafa bare bare bare da ngay ñëw ni man damaa amee bor ñu ne ñaata nga ne cinq cent mille ñu nukki amul li jëm ci amul këy ñu nukki fay la parce que alal bi dafa bari lool subhanallah mu ne insha allahu di ngeen gis boobu ndax fekki ko kon mbokk yi li ma bëgg a wax mooy maanaam ci gàttal l'islam dafa néewoon doole ñu koy xorñoñal di ko bundu xataal di ko buux muy daanu waaye dem nañ ba yàlla defal leen doole jooju ñu am ko lan moo leen ko may yaabudunani laa yushrikuna bi shay'a tom boobu nag bàyyi leen ko xel bu baax Muaaz ibn Jabal nee na benn bis maa ngi yonente bi dañu daf ma toog ci mbaam sama diggante gi yonente mu axiratu raxla rek moo fi nekk mooy wéerukaay boobu nga xam ni moom mooy tege ci kaw toowu gi leen nga xam ni kuy teg dara ci sa kaw sa kanam booy julli yonente yàlla ne na nga teg lu tolloog bu axiratu raxla ci xadis boo xam ne mi ngi ci muslim nee na ma toog ci ginnaaw léegi de yow sa oto sëriñ sax ñi moo ko arrêté naa ko yóbbaale ma ñu ne ngeen loolu Sénégal yi sëriñam ki mu jàpp ne mooy sëriñam mu tax ko tali bi ñu ko eh yóbbaale ma déedéet doo ko xalaat waaye yeneen bi moom maam la doon war yemul ci war maam daan Muaz kaay gunge ma allahu akbar Muaz ñëw ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko Muaz mu ne ko labbayka wa saadayka ya rasulallah yonent bi ni tekk ku mënoon a jàngale la sallallahu alayhi wa sallam Muaz mi ngi déglu lan la yonent bi wax ñu demaat cent mètres yonent bi ni ko yaa Muaz mu ni ko labbayka wa saadayka ya rasulallah di ko xool ci déglu yonent bi ni waa fat mu demaat mu yàgg ni ko yaa Muaz mu ni ko labbayka wa saadayka ya rasulallah mu ni ko atadri ma xaqullahi ala al abid wa ma xaqu al ibadi ala allah Muaz est ce que xam nga yan la àq la yàlla am ci jaam yi ak yan àq mooy yoo xam ne yàlla war loolu na ko ba mu defal ko jaam yi Muaz ni ko allahu wa rasuluhu alam yàlla ak yonente bee xam allahu wa rasuluhu alam nag bu yonente bii dund lañ koy wax du xam ngeen loolu bu dundatul nag allahu alam li anna rasula nekkatu kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Muaz est ce que xam nga àqu yàlla ci jaam yi ak àq yi yàlla warlul boppam defal ko jaam ñi mu ne ko yàlla ak yeneen ci bee xam mu ne ko àq bi nga xam ni yàlla subhanahu wa taala moom la ko jaam ñi ameel mooy an yaabuduhu wala yushriku bihi shay'an nan ko jaamu te buñ ko bokkaaleeg dara bul giñ ci ku dul yàlla bul wàkkilu ku dul yàlla bul nidaral ku dul yàlla bul yaakaar ku dul yàlla bul foog ni lenn loo xam ni man manu yàlla la am na keneen ku ko man boo ko defee baaxul de billahi alladi la ilaha illa hu da nga julli ba sonn te boo dee yàlla delloo loo am ci ay jaamu yàlla buñ ko bokkaale raxee mu yàqu mbokk yi kenn ku ci nekk ci ñun su dee li muy liggéey ci ay jaamu yàlla bëgg na ko na jege ña ko tane ci borom xam-xam laaj leen luy bokkaale wa laqad uxiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta taawul muxaataba waxyu naa la wax yi la fi jiite yonent bi dama ni la in ashrakta boo jengoon nga bokkaale yàlla ak lu mu tuuti tuuti la yaxbatanna amaluka li nga def lépp ay yàq wala takunanna min alxaasirin alaxira nga perte joxoñ bi ci Muhammad la jëm yaakaar nga ni kon war naa mooy keneen ku dul Muhammad déedéet mu ne ko àqu yàlla ci jaam ni mooy nañ ko jaamu buñ ko bokkaale ak lenn waxul ahadan de shay an la wax dara te ku ne xam ne ni ci wolof dara gën a matale leer na ndax leen na mën naa am lu mu doon bàyyoo ca des waaye dara moom lépp yonent bi doxaat ab diir tamit ni ko maan est ce que xam nga àq bi yàlla warlul boppam ci jaam yi mu ni ko déedéet mu ni ko bu dee lii mu leen digal def nan ko day dana leen dugal aljanna allahu akbar kon mbokk yi ñu góorgóorluwaat yëg ni même bu ñuy dund ci am réew moo xam ni attewawuñ l'islam sonn ñu ca yañ war a sonn yow sa biir kër dundal la nga war a dund yàlla defal la lim digoon ñi gëm yàlla da ngaa foog ni maanaam réew mi dañuy ñàkk dund l'islam rek nga ne kon lu ma neex laay def rek amul mënuma am doole déedéet wallahi yàlla mën na la koo defaral yow kese kese kese kese yaa say mbokk loolu nag mbir la moo xam du caage ni comme la nga doon dégg puissance bu jullit ñu doon ngay am déedéet waaye am na dafa tawfiq ak dal ak ndimbal mi ne ay ndig yi ba nga yëg ni lii ci yàlla bàyyi ko subhanahu wa taala lii moom ay nit dund nañ ko xam nañ ko kon benn bis Rabia ibni Anas mu ngi nettali jële ci abil aliya mu ni dafa jàng laaye ji waada allahu alladina amanu minkum wa amilu salih ba mu jeex mu ni sahaaba yonente bi dañoo nekkoon ci makka lu tollal fukki at di woote di ko nëbb di woote di ko nëbb ñu leen di tooñ te sa ñu ñoo fay ñu metti lool ci ñoom waaye ñuy muñ nee na ndeysaan ñu leen di taw ay jaasi rek ñuy muñ ba benn bis benn sahaaba ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw lii moom abada dahri dañuy toog ba dee rek ñu bu ndox taal rek yonent bi ni ko déedéet xanaa bis bu ñëw boo xamante ni yàlla danañu defal ndimbal yonent bi ne ko ahankay lan taburu illa yasiran xatta yajlisa arrajulu minkum fi lmalai alazim muxtabiyan laysat fihi xadida yonent yàlla mu ngi li ngeen li leen dese ci yoon yi tuuti la rek ngeen amuk dal amuk sécurité ba kenn ci yéen kenn kese dina toog ci digg penc bi nekk fa kilifa te kenn du ko laal loolu am na ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam balaa moo faatu kon daal li ma bëgg a wax foofu mooy borom bi soxla dafa digee ci aaya ji waada allahu yàlla dig na alladina amanu minkum ñi gëm yàlla ci yéen wa amilu salihaati tey def jëf ju baax parce que al iman maqrunun bil amali salih loolu nag mi ngi tontu eh dimbali ma xoola takk xanaa sénégalais loolu la ñuy wax kaay def nangam nangam kaay muuru mu ne dimbali ma xol moo takku lépp ay baax déedéet al iman maqrun bil amali salih al iman i'tiqadun bil qalb wa wa qawlun wa qawl wala nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih xoola takku du ay wax de xoola takku xoola takku wax ju yàqu la waxi ku daanu ci kaw sareet la ah xool takku wut de xol ak cër ak jëf ñoo bokk takk ñoom ñëpp ndax fas fas la ci xol boo paree manifester ko sa làmmoñ soo paree say cër di ko jëfe nee na kon yàlla dig na ñi gëm tey jëf jëf ci baax la yastaxlifannahum fil ard yàlla dina leen def wuutalal ci kaw suuf ah kama staxlafa alladina min qablihim comme ni yàlla mayee woon doole ñi leen fi jiitu woon loolu dama ci surtu xasas ak saar yi ni mel yàlla ma ngi koy nettali ci waa banu israil yàlla dig na leen dinaa leen may doole ah lu jiitu maam gi fekk lu jiitu amu leen woon doole comme ni nga ko diggee banu israil ci jamono ba ñu wax ak Moussa alayhi salaam suñu baram mu ni wala yumakkinanna lahum yàlla dina leen jàppandalal diinahum alladi irtada lahum seen diine ji ñu ji ñuy dund wala yubaddilannahum yàlla dina leen remplacer min baadi amni xawfihim ginnaaw bu ñu ñàkkee sécurité am nañ sécurité bu mat doole ju mat kiiraay gu mat sart bi mooy yaabuduuna nii nan ma jaamu wala yushriku bi shay'an buñ ma bokkaale ak dara wala yushrikuuna bi shay'an buñ ma bokkaale ak dara ah wa man kafara ku weddi nag baada dalik ginnaaw bu lii amee ku lànk ku delluwaat gannaaw ku def la ko neex suñu borom ni fa ulaayika ñooñu de humul faasiquuna ñooñu ne génn ak topp te tooñ mënta paase génn ak topp te ku génn ak topp lum dajeel moo koy yëg kon laaya ji laaya juy delloo si waat suñuy xel ak suñuy xol ci delluwaat ci góorgóorlu dundaat suñu diye dëkk gis nga fi ne benn waay day foog ni maanaam bu dee dañuy dund ci réewu layik atte bi layik la caaxaan yeeg fay bari na mënuma ci dara soo waxee ñu tëj la billahi alladi la ilaha illa hu benn waay bu toog ci biir këram muy day jéem a dund lislaam am pas-pas bu set di ko jàngal waa këram di xamal leen yonent lu bëgg loo leen ko gëm yàlla te dëgg ci wallahi yàlla dana ko defal lu mel ni lam doon defal asxaaba ya dama ni loo mën a dugg ci ay loo xóori ci musiba yàlla jàppale la lii may wax am na ñu ko dund de gis nga lii may wax am na ñu ko dund maa ngi nekk la qissa boo xam ni ak sëriñ daara la dal fii ak waajoo xam ne ku ñu xam la ku jàmbaar la ku góorgóorlu la problème yi mu am rek bañ leen koo keeyal ci yoon xam nga gars yi moom yàggam dinañ maanaam dara xosi daara rek bañ ñëw wax ko yokk yokk te lu ñu bokkut biñ dikkee wax ay wax xam nga lu mu def dañ bàyyi ba xaaji guddi mu jug julli ñaar rakk di ko gars yi ay mbokkam ñëwee demal def plainte demal nag mu ni wallahi du ma wut avocat du ma plainte man yàlla laay plainte subhanahu wa taala sama plainte yàlla laa koy jox damaa teewlootu kista ba nu mu mel te lan guddee waaye lii moom lu wér la maanaam lan moo xewoon dëgg-dëgg lan mooy sabab ba loolu laa fàtt waaye mbir mu garaawoon lool ba yoon am cawaal xam nga fan la mujjee wallahi bi ñu demee tribunal mbir mu daal këpp ca kaw ka ko sooke woon lii leer na la ci li ñuy nekk am na yeneen yu bari yu nekk am na ay mbir yu bari yoo xam ne ay jaamu yàlla dund nañ ko fii yàlla jàppale leen ko dama ni saa boo ragalee yàlla kot di góorgóorlu dund sa diine dama ne yàlla moo jige ndimbal te yàlla sàkkul ndimbal li faw mbooloo am ma doo koy joxe dëgg la bu amee moo gën a baax de waaye nag kenn kuy góorgóorlu walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana gaa yi benn benn yi jéem a góorgóorlu yàlla dina leen jindi teg leen ci yoon wi wa inna allaha la maa al muhsinin li yàqu di koy jéem a rafetal ak a defar yàlla mu ne maa ngi ànd ak ñoom na nga xam ne fi ñu teg seen tànk dëgër na dama ni ba lislaam da tasee amee ba tey ay nit ñi ngi jéem di ko xeex waaye fan la mujj ban at ngeen mën a dégg ñu doon xeex lislaam ba réussir pour islam fay dafay ñoro li war a naan suul keroog du ko teree fee yàq kam yoon suuf doo nga lay doon pare mu jale ca kaw lislaam moom diine yàlla suñu borom moo ko yoral kon mbokk yi nu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla nootal nu suñuy xol weñal ñu suñuy bëgg-bëgg ñett ñu ci wéetal ko bañ koo bokkaale lenn ba dee di fekk ca loolu اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين